Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Avec beaucoup de plaisir, on se retrouve sur Télévision Futur Média pour recevoir notre invité d'honneur. suñu d'honneur bi nag euh, tey du kenn ku dul Viviane ma bëgg ngeen tàccul ma ko bu baax mu ñëw fekk si ma ci plateau bi Viviane ëpp na ay at bi mu ñuy bégal ak léegi c'est pas la première fois mu nekk invité d'honneur bu télévision Futur Média tey moom moo ñu defal honneur ñëw fekk suñu fii pour ñu waxtaanee album bi muy doog a génne tuddee ko beneen level alors tey Viviane daf ñuy yóbbu ci beneen level ngeen tàccuwaat bu baax Viviane. lenn rek a ma jaaxal te xam naa ni moo jaaxal sénégalais yëpp lan moo tax à chaque fois su ma la gisee da ngay mel ni ku rajeunir beesaat et pourtant boobu ba tey yaa ngi ci yaa ngi ci yaa ngi ci jal bi. ah euh, di sant yàlla bu baax rek ndax euh, yaakaar naa ne nit saa yuñ la gisee rek ñu ne kii macha allah loolu bëgg sa bopp la rek. Mm-hmm. waa bëgg sama bopp di toppatoo sama bopp Euh, ba pare nag di dund no stress ni ma koy waxee. Mhm. ak Sénégal bëgg ma rek ma ciy bëgg. <laughs> mais toppatoo bi ngay toppatoo sa bopp il faut nga jox ko nga joxe secret bi parce que gis naa ay jigéen yu bëri yoo xamante ni dañoo bëgg mel comme yow euh, jaral na leen tukki jaral na leen euh, wut ay solution mais musuma dégg nga wax sa secret <laughs> lan moo tax boobu ba tey ngay maintenir cap bi. mais papa mooy li may wax rek. aw ma ci nag benn secret boo xamante ni dafa dafa doy waar wala loo xam ne lu may nëbb la. Mhm. mais mooy li ma expliqué rek euh, no stress. Uh-huh. liggéey di bëggee sa xol di neex. Mhm. loolu daal mooy secret bi. jeex na ngeen bu baax. ñu ngi leen di gërëm ci ànd bi ak télévision Futur Média nuyoo gu ñu woon dañ doon def fausse ouverture Viviane ak man. Euh, tey moom moo nekk suñu invité d'honneur invité d'honneur bu télévision Futur Média et c'est pas la première fois nga nekk fi invité d'honneur ndax télé bi sa télé la euh, bi album bi génnee nga ni exclusivité bi euh, ñun nga koy jagleel pour suñu ay téléspectateurs ak suñu ay internautes je rappelle que tey hashtag bi day nekk beneen level parce que Viviane daf ñoo fas yéene yóbbu ci beneen level ma bàyyi la nga ak suñu mbokk yi nga xamante ni depuis ñu annoncé ni yaay nekk invité d'honneur bu télévision Futur Média ñu ngi lay xaar merci beaucoup papa maa ngi nuyu Sénégal yëpp di nuyu kilifa diine yi kilifa aada yi ah di nuyu nag euh, sama fans yi euh, di nuyu borom kër gi bu baax di leen nuyu. Mhm. di kontaan rek jàkkaarloowaat ak Sénégal. Mhm. Euh, pour présenter leen album bi nga xam ne mooy beneen level. bu loolu weesoo nag Pape. Mhm. may profiter ci occasion bi balaa ñuy xuus. di jaale. sëñ Abdourahmane Tilala Chérif Abdourahmane Tilala waaw voilà di ko mm-hmm. jaale Sénégal yëpp ak mm-hmm. soxnaam ak njabootam yëpp mm-hmm. voilà c'est que nit ku baax la woon koo xamee ni bi ñu déggee di dem na ça nous a fait tellement mal parce que papa yu la woon sëriñu ñëpp la woon te yow loolu mooy sa particularité amul amul amul murit amul laayeen amul catholique amul julit Viviane Viviane u Sénégal la te gis nañu ni boobu ba tey yaa ngi ñuy bégal wax naa ko album bi nga mujjee génn tuddee ko beneen level prévoir ci ay concert te ku ne concert u Viviane ni daje te daje léegi wóoratul ak koro ji luy sa xalaat ci loolu. <laughs> waa dëgg la xam nga nag euh, parce que doguma la gis naa ñu bëri sax ñuy ñu am yaakaar ni dinañu euh, annuler seen ay concert euh, dinañu annuler seen ay salon ou quoi que ce soit yow en tant que porteur de voix war nga cee am kàddu. waa dëgg la Pape ndax jàngoro ju mel noonu bu duggee sunu réew. Mhm. li ñuy mën ñun ñi nga xam ne ñoo yor micro yi di wax. mooy gën a ñaaxaat askan wi rek pour ñu gën a def attention. Mhm. parce que euh, wax nañu li nga xam ne moom moo lay mooy tax nga mucc ci. Mhm. mooy di raxas sa loxo di moytu. Mhm. Euh, di def très attention. Euh, loolu boo ko defee rek. di nga mucc ci jàngoro jooju. parce que sànq ci ginnaaw ci coulisses yaa ngi ma naan Pape c'est vrai que war nañ ci mën a waxtaan mais lu sérier la. Mhm. Euh, xanaa ñu topp rek li ci ministère de la santé di ñu diggal exactement yaa ma ko wax sànq. dëgg la dëgg la comme moom wax na. Mhm. léegi na ñu topp loolu. Mhm. li nga xam ne moom la wax te ñuy. def attention rek dëgg la mm-hmm. Sénégal nag dëgg la. Mm-hmm. xam naa ñun ñëpp ragal. Mm-hmm. parce que bu ñu ko déggee na eh, fu ñu jugee. <laughs> bu ñuy dem gars yi affaire yi. <laughs> mais yàlla baax na Sénégal jàmm rek moo fi am. di ñaan rek jàngoro jooju yàlla na gaaw jeex ñu seet li gis li koy faj. ñëpp nekk si jàmm. parce que damay ragal ci date yi nga am le 14 euh, yaa ngi jëm Tëngéej le 4 avril ñu ngi jëm Grand Théâtre kuy ñëw indi satala ak bool teg ko ci bunt bi bala nga boo daggee tiki raxas say loxo doo dugg ci concert bi. waaw ba tey mën naa ne <laughs> waaye man xanaa su may woy damay sol masque. dëgg la de daal di a bënn tuuti fii. <laughs> <laughs> c'est vrai que lii mooy particularité Sénégal lu affaire bi sensible sensible ñun dinañ ci kaf dinañ ci ree Angélique Kidjo disait un jour ci benn plateau TV5 que dafa ñëw Sénégal dem benn quartier bu ñu naan ñaari tali foofu boo fa duggee ñu bëri euh, peut-être euh, ñii bu ñu añee du ñu reer am nañu ay jafe-jafe mais foo leen fekk dañuy reetaan te loolu defe naa yéen porteur de voix yi bokk ngeen ci ci ñaax nit yi lu jamono naqadi naqadi naqadi naqadi na reetaan nañuy bégee nañuy dund no stress Pape mooy li nga ma laaj léegi rek saa yu ma gisee lu tax ngay gën a nice mooy Sénégal jàmm rek. <laughs> macha allah ndax kilifa yi ñaan nañ ko fi euh, sëriñ su mag si ñaan nañ ko fi euh, ñëpp ñaan nañ ko fi. donc defe naa ne Sénégal jàmm rek moo fi sax te moo fi yàgg incha allah waaye nañu fagaruwaat rek ci lii def très attention ku nekk di xool di raxas say loxo. di def attention li nga xam ne moom lañ digle rek. Mhm. ñu koy def ba pare non stress nag. gars yi voilà non stress rek voilà non stress la Viviane woote bu leen fàtte hashtag bi beneen level lépp lu ngeen bëgg a xam ci album bi envoyez vos commentaires et vos et vos questions comme ça ñu jagleel ko euh, Viviane mi nga xamante ni tey mooy invité d'honneur euh, bu télévision Futur euh, Média beneen level mooy daj dëpp gi. album la boo xamante ni dëgg la saa yoo génnee ñu ne Viviane du génne lu dàq lii mais bi beneen level génnee ñëpp ne moo dàq yi fi jiitu. te pourtant yi fi jiitu ba ñuy génn dañ ne Viviane dootul génneeti lu mel nii lu tax beneen level. waaw lu tax beneen level xam nga nag man Pape su may liggéey tout le temps damay bëgg di innover di def lu bees. Mm-hmm. Euh, ndax man loolu moom mooy sama style boo xoolee bi ma commencé entre nous ba tey. Mm-hmm. yaakaar naa ne. Euh, benn mbalax moo ci am. Mhm. li ci des yëpp beneen yeneen xeetu musique la. Mhm. donc euh, loolu moom man moo ma topp ak variété bi ma def. Mhm. ba tax ne saa yu may génnee album. rawatina jamono ji nga xam ne moom lañ toll. ak musique fi mu toll. faw ñuy gëstu di def musique boo xamante ni. tey sunu mbalax bi dinañ ko mën a dugal fu nekk. ba nga xam ne àddina bi dinañ ko mën a fecc. du dëgg. est-ce que du c'est parce que variété bi nga tàmbalee moo indi tey fu ñu dugal Viviane mu nekk fa la dernière boo demee ci capitalu Afrique yi. Euh, ñoom seen musique rek lañ daan fecc ñun fii Sénégal dëkku melamaan la fecc nañu rumbaa fekk nañu kwasa kwasa fe fecc nañu eh, eh, bi ñàkk yi daan def rek sama mbokk yooyu nekk Côte d'Ivoire eh, coupé décalé mais yow bokk nga ci artistes yi nga xamante ni Sénégal ngeen fekk baax mais actuellement sa musique dañu koy fecc Conakry di ko fecc Abidjan di ko fecc Mauritanie di ko fecc Bamako ouverture boobu nga xamante ni moo nekk ci Viviane depuis un bon bout de temps naka la mbir mi demee ba level bi toll fii mu toll actuellement ak Viviane. waaw mooy liggéey rek li may wax ouverture c'est-à-dire liggéey man mooy li nga xamante ni su ma koy def. ñëpp laa ciy boole. Mhm. man dama ne sama liggéey géej la. Mhm. parce que tey mënuma tëju man rek. Mhm. ne ok li may créer man rek maa koy créer. li may composer man maa koy bind. damay bëgg ku ci nekk di ci am sa xalaat. di indi ndax loolu boo ko defee rek. di nga mën a toucher public bu nekk. di nga mën a feccloo maire yi di nga mën a feccloo paa yi di nga mën a feccloo xale yi. ñi nga xam ne deux ans la ñu am am na ci ñoo xam ne buñ ma envoyé seen vidéo sax damay tiit. parce sa ay way dafay neex a way. voilà non seulement texte bi yomb na. Awa sama frère. Euh, texte yi day yomb. mais musique bi aussi léegi fi mu toll. soxlaatul muy compliqué. dëgg la voilà nañ ko nit ci mën a fecc. ba pare mu nekk loo xam ne lu xew la. voilà mais ñu bañ a fàtte sunu culture. li nga xam ne ñoo ko moom. voilà tama yeeg xalam yeeg. li nga xam ne ñoo ko moom bu ñu ko fàtte jamais. yu saf yi lu ñu mën a def rek nañ ko ci boole. <laughs> mais lan moo tax ngay laaxaale euh, parce que euh, on va présenter les musiciens. Ah. Euh, tey loolu laa bëgg du Viviane rek moo ñëw mais dafa ànd ak gàngoor. gàngoor boobu nga àndal ràññee naa ci ay musiciens yu mag tudd nga léegi nii Baxaaw mm. avant ñuy wax ci production beneen level bi lan moo tax ngay ñambaas ay musiciens guinéens waa Mali waa Côte d'Ivoire. ku ci nekk dina ci indi touche ba affaire bi bu génnee ñëpp mën koo fecc. mais Pape boo leen ci deful tey dëgg la mbalax la ñuy tëgg de. Mhm. mais su ñu tëggee suñu mbalax rek ñun rek. Mhm. ñoom bu ñu koy fecc contre temps lañ koy fecc mhm. dina neex si ñoom mais duñu xam non seulement duñu xam li ñuy wax. musique bi dina neex. mais voilà ku nekk sa sa sa aada sa culture. mu ngi mel ni ñun ñu tegal ñu li nga xam ne rek mooy euh, musique malienne. tenkering kering kering ñun niñ koy déggee rek lañ koy feccee. dëgg la mais loolu ñoom buñ ci indee mbalax indi ci. Euh, musique mandeng bi. voilà mhm. yooyu yëpp buñ ko mélangé. Mhm. day tax mu indi leneen. d'accord Afrique nag. Mhm. ñun ñoo ko moom. cest à musique bi nga xam ne mooy lëmbee àddina jamono bi. Afrique la jógee. Ah? léegi nag man li may wax rek mooy musique dafa yaatu. sooy musique. gëstul mhm. wool ñëpp nga xool li xew di déglu di voyager mhm. di xam li xew loolu moom mooy leen mën a permettre tey nga mën a percer ci àddina bi voilà sa rencontre ak euh, compositeur bi di Akathie je pense qu'il est là est-ce qu'on peut le voir il est là est-ce qu'on peut le voir <laughs> est ma bëgg ngeen tàccul ma Akathie mi bu baax c'est un très grand compositeur Il nous vient de la Côte d'Ivoire. Moi, je l'appelle souvent Atchéké, mais c'est pas Atchéké, c'est un mangeur d'Atchéké, mais il s'appelle Akaché, un très <laughs> grand compositeur, mangeur d'Atchéké, mais artiste compositeur qui a beaucoup de grands artistes. Mais yow nga liggéey ak moom ci beneen level bi euh, qu'est-ce que ça te fait de liggéey ak ku mel euh, comme euh, Akaché. bon Akaché depuis wuyu ma la. waaw voilà maa ngi fàttaliku bi may joué Just for You Villa Cristal. Mhm. ñëw doon joué ak waa Dara ji. Mhm. mu ñëw def benn mix boo xam ne waaw la woon waaw. Mhm. waaw waaw waaw. mu mhm. ñëw ni ma tata ah écoute écoute ce morceau <laughs> ma jël ma déglu ma ko c'est très bien. xam nga après bon yàlla di def. Mhm. ba ñu euh, daje Guinée. bi ma defee morceau ak euh, waa Blanc Banlieusard. ñu daje Guinée euh, ak a nañu def tube de la l'été. voilà ma ne ko ok. Uh-huh. fekk baxaw laa àndaloon ñu def wuyu ma. Uh-huh. mais morceau bi ñu fa yóbbu woon sax fàtte nañ ko tellement que wuyu ma ah, dafa neex ko def. <laughs> non def nañ ko mais wuyuma rek lañ doon déglu. d'accord retour bi avion bi lépp wuyuma lañ doon déglu affaire bi neex neex neex ñu ñëw ak ci proposé waat ma yeneen morso donc ñuy def album bi di gën a neex di gën a neex di gën a neex ba mu mat. Mhm. donc depuis wuyuma la. Mhm. Euh, ak yeneen single yi nga xam ne def naa ko mhm. touche am. c'est très important ci musique bi parce que ivoirien la. et puis euh, da ci indi leneen loo xam ne Abidjan nañ ci gis seen bopp ñeneen ak ñeneen dinañ ci gis seen bopp donc defe naa ne liggéey bu nice lay def te du ci man rek. la koy def depuis wuyuma. yaakaar naa ne Sénégal yëpp a ci gis seen bopp ñu ngi liggéey moom. applaudissements ma bëgg ngeen wa ci merci pour cette touche originale euh, ci album euh, bu Viviane animateur bu toog ak yow du yàkkamti libéré la pour nga dem woy parce que wax ji day neex. Euh, man fi ma toog maa ngi enjoy et je sais que yéen ñiy seetaan yéen tamit yéen a ngi enjoy donc dama ciy profité le maximum yéen tamit mën ngeen cee profité puisque invité d'honneur bu télévision Futur Média tey Viviane la album beneen level dafa am ñaari titre yoo xamante ni man dañoo dañoo dañoo dañoo toj sama xol muy jóg liggéey ak rëcc naa dama bëggoon nga dem ci scène bi may ñu ko en live comme ça ñu bëggal ci téléspectateurs yi damay damay damay réfléchir entre jógal liggéey ak rëcc naa mais jógal liggéey itam comme moo gën a sedd te ñoo ubbee boobu. boog ñu dem. tàccu leen Viviane mu dem sur scène proposé ñu extrait wu album beneen level jógal liggéey ginaar yi sab demo histoire Abdou Gueye un tout petit peu ci similitude racontée par Viviane notre invité d'honneur tey ci télévision Futur Média midi passé na ngay nelaw. te nga war a jóg liggéey le message est tellement fort et pourtant refrain bi boo ko déggee dafay neex a way Viviane wax na ko mag da koy way merci ñu déglu ko ak premier titre bu mu ñuy proposé tey ci ku dikk ci télévision Futur Média ngeen tàccuwaat bu baax Viviane ngay nelaw jógal dem liggéey li ci topp nag mooy rëcc naa toujours ak Viviane tey daf ñuy yóbbu exceptionnellement ci beneen level ci télévision Futurs Médias ay sax da koy fecc Mauritanie da koy fecc tàccu atal leen ma Viviane bu baax a baax a baax a baax bravo on est très content et pourtant dañuy doog a tàmbali nga masol ñu jóg a liggéey rëcc na way la boo xamante ni ah? yow kii nga doon laaj euh, rëcc naa man rëcc naa laa laaj mais yëfu bandi lañ la may mais mais mais mais lu tax nga def ma loolu parce yëfu bandi parce que da nga da nga gis ni woy bi moom la jéeg ji see léegi dañuy taal añ sax di ko teg di gaaruwaale seen jëkkër yi ah. waaw xam nga nag xam nga jigéen da ngay bëri feem. waaw da ngay joŋe ah. waaw da ngay joŋe ah, bëri feem mën sa kër mën sa waañ. mën fépp mën a téye sa waay quoi mën a téye sa waay mais lan moo tax yow nga jékki-jékki rek ne xaaral nga xeral leen ci naka la ñuy téye waa ji waaw xam nga lu tax parce que album bi maa ngi ci classe góor ñi mm-hmm. xasuma leen dama leen delloo si war seen xel <laughs> ay ñoom doo daraak yooyu eh. mais tamit baax na tamit ma waxtaan ak sama xaritu jigéen ñi ndax Sénégal moom ñu moo ko pooj rek a fi ne jox leen ay conseils voilà conseils yi sax xam naa ne ñoo ma koy jox mhm. waaye comme man euh, damay damay dund mhm. am naa jëkkër Euh, am naa xarit yu am jëkkër. xam naa bu baax ni ngay jàppee sa waay. donc yaakaar naa ne baax na aussi. ñu dalal xelu góor yi tuuti. <laughs> ci morceau yi. balaa ñu naan ah moom daf ñuy clash rek. <laughs> dëgg la de ah? moo tax secret bi ñu sagal leen tuuti ah. <laughs> mais comment tu as fait euh, ba génne régal bu mel nii euh, parce que tubaab bi ñoo naan album bi c'est un lu neex la loo xamante ni dafa dugg xol noo def ba génne lu mel nii. waaw mooy li ma lay wax rek xam nga mbooloo. Mhm. mooy indi doole. Mhm. te mooy li ma la doon expliquer sànq rek. Mhm. musique moom boo amee boo ubbeekoo rek euh, mooy waral lii. tey ñi nekk ci salle bi bu dee Abidjan mi ngi fi bu dee Nigéria gars yi ñi ngi fi bu dee ñi ñuy seetaan ñoo xam ne sax dégguñu langue bi nañ ko mën a fecc. waaye nag dama am euh, équipe boo xamante ni. Euh, damay liggéey ak ñoom. dañu xarañ. ku ci mel ni baxaaw maa ngi ko doon tudd sànk Euh, Jolof Band tey ñoo tëgg album bi ak Akache tey Akache dama ko ne mën nga composer mais nañ ko tëgg en live Jolof Band ñoo indi seen touche maa ngi leen di remercier waat bu baax Ibou nduur tamit ñoo dugg ci liggéey bi vraiment indi ci lu rëy rëy euh, def distribution album bi euh, déranger moo ko def gis nga ni muy déranger donc vraiment ma leen di remercier ñoom ñëpp ñëpp a jàpp ci liggéey bi moo tax mu mel nii. Mhm. voilà man nag ma ñëw indi ci sama. indi ci sa touche indi indi ci xorom si. dafa am foo xamante ni dama bëgg ñu des ci tuuti euh, parce que Ibou Ndour Jolof Band la bokkoon. ibu sama doom la c'est un ancien du <laughs> sama frère la sama doom la. sa sa retrouvaille ak moom surtout ci album bi. Mm. Sénégalais yëpp. ñii bett na leen ñii bettu leen. Mhm. album bi actualité la woon mais retrouvaille Viviane ak euh, Ibou. Mhm. nekkoon na itam actualité. Mhm. Euh, naka la sa retrouvaille ak moom demee ba lii juddu ci. bon xam nga nag euh, ñun famille lañ d'abord. ibu ñoo bokk ndey ak baay. deret ji jaxasoo na. te tey man yàgg na damay liggéey yenn saay ma woo ko Ibou loo xalaat ci lii mu ne ma lii. loo xalaat ci lii mun ne ma lii. donc bi may def sama anniversaire euh, Pullman ci laa ko woo ma ne ko Ibou maa ngi def euh, remix morceau euh, dérangé bi mhm. mu ne ma envoyé ma ko WhatsApp ma envoyé ko ko mu ñëw mhm. fekkee répétition yi indi ci toucham donc foofu la affaire bi déma mhm. déparé daal maanaam voilà donc voilà retrouvaille mu def ko vraiment ak xol bu rafet def ko parce que Ibou xamante ne yàgg nañu liggéey maag moom Jolof Bon donc tey xam na exactement li ma bëgg bi ñu duggee studio moo def lépp. Mhm. mu neex ba bëgg a dee taxawuñu fa taxawaaluwuñ fa donc mu mixé ko ñu waxtaan toog waxtaan loo xalaat ci distribution album bi avec plaisir ma jox ko ko parce que ay professionnel la ñu xam nañu lu ñuy def. Mhm. ñu jël album bi distribuer ko. Mhm. continuer liggéey nag voilà toujours famille bi la et puis merci encore Ibou. ak euh, Jolof Band. choix wu yi ak ñi ngay collaborer ci say album à chaque fois dañuy gis ni ay professionnels lañu on va on va rester ci mouvance bi ganu télévision Futur Média invité d'honneur télévision Futur Média mais ci musique bi nga ne euh, da nga cee doon ren moo tax daanaka dañu koy waxtaanee euh, da nga am flair wala suñu borom moo lay war wërsëgale di la booleek ay musiciens professionnels ak ñi lay encadrer ñëpp nekk professionnel wala li nga ci yàgg. àndandoo ak Youssou def tour du monde ba carrière bi toll fii mu toll moo la jox euh, euh, euh, savoir faire ngay xool ñi ngay tànn pour ñu liggéeyal la wala lu la lu la yàlla di wërsëgalee noonu rek muy ñëw la. waaw xam nga nag liggéey boo ci yàggee. Mhm. man bi ma nekkee xale boo gisee ñu naan Viviane peut-être booba tey boo gisee du màgget parce que dama yàgg peut-être bi ma nekkee xale la ma nit ci commencé gis. may woy seven seconds yi màggaale. ak euh, voilà yàgg ci bëtu macha allah sénégalais yi. Mhm. loolu moom moo tax jàng nag ci su professionnalisme xool ni muy liggéeyee. Mhm. xam lu baax bëgg lu baax. Mhm. tey man du ma foyee sama musique. képp lépp lu may def rek dama koy xoolaat. mais nag xeebuma kenn parce que musique tey ki nga xam ne moo mujjee juddu sax. Mhm. mën na la jox loo xamante ni tey boo ko génnee mu toj. Mhm. voilà donc euh, voilà mooy musique dafa yaatu daal. donc ñàkk koo xeeb ak ñàkk koo fowee moo tax ngay euh, def choix wu ay professionnels pour ñu lay encadrer. di la accompagner. da ngay ànd ak pro. Euh, <laughs> dëgg da ngay ànd ak pro. pour mën a def lu pro. voilà album beneen level. Mhm. tey mu toll foo xamante ni Sénégal c'est sûr que ñu doon joxe disque d'or wala platine am nga ko bu yàgg xaw ma nag fu ñu toll ci loolu mais jot na pour ñuy jox suñu woykat yi ay ay ay ay distinction yu tolloo ak seen ay niveau bu doon beneen dëkk nga ko génne ba tey am nga disque d'or ma ñëwaat ci présence internationale bi gis nañu ni waa Mali par exemple bu ñu dee organiser euh, seen nuit malienne euh, fu mel ni Bercy dañ la ciy ñambaas gis nañu ne waa Guinée bu ñu bëggee sagal seen drapeau un peu partout à travers le monde du ñu yem ci ay woykatu Guinée dañuy jël Viviane ne ko ñëwal nga woyal ñu tey euh, le fait que du Sénégal kese moo la soxla yeneen dëkk yi di la xëccoo ak Sénégal euh, yokkute la sak la ak ndam mais est-ce que yomb na pour yow nga boole dëkk yëpp di ko di ko gérer en même temps parce que nekkatuloo Viviane u Sénégal kese waaw loolu moom plaisir la pap mooy liggéey rek moo am solo mhm. euh, mais nag dañoo yàgg mhm. parce que jiin leen bi mu ne tëll jiin leen laa la wax. Mhm. Euh, maa ngi koy fàttaliku Mali la ñu Gambie la ñu njëkk a tëgg. Mhm. ak group bi mais bi ñu demee Mali. Mhm. c'est-à-dire ñoom xamuñu sax li may wax. mais dëkk baa màbb <laughs> ah Ibou mu ngi ci woon ñu ñëw ñu tegal ñu c'est-à-dire salle bu rëy boo xam ne mu ngi toll ni grand théâtre mais ay baaful yu toll ni lañ fa fekk. <laughs> baaful yu ndaw ay baaful yu gàtt yu toll ni yaat ma caam. mu ah xanaa nga ñëwee ko wax. <laughs> ay baaful yu gàtt. baaf yu toll yi donc ñuy xool nu ñuy def pour am son bu mag tellement que salle bi dafa réyoon depuis boobu la la la sama digganteek ñoom tàmbali mm-hmm. euh, jiin leen ba tey mm-hmm. donc tey euh, su may def musique muy neex ñu koy enjoy mm-hmm. di ma woo nekk mooy Afrique ñun ñëpp benn la waaye nag bu ñuy musique nañ ci sóoraale Afrique pays sous région bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu ne mbalax rek la ñuy def nañu toog ci mbalax mbalax buñ koy def gis ngeen ni muy neexee saf sàpp mhm. dara du ci manqué mhm. bu ñu fas yéenee mbalax rek dañuy mbalax waaye nag bu ñu waree def yeneen xeetu musique nañ nañu xalaat sunu ah sunu sunu dëkkandoo yi. <laughs> parce que ñoom itam euh, ñun dañuy. ci lañ consommer dañuy consommer seen ay musique ñu ngi nag ci weer boo xamante ni weeru jigéen ñi la. mënoo nekk invité d'honneur bu télévision Futur Média doon ki nga doon te duñ ci wax tuuti parce que weer la boo xamante ni dafa tombe ak 8 mars euh, muy journée internationale de la femme. ngay femme chef d'orchestre jiite ay góor njaboote leen ñoom ñëpp nekk maire de famille nekk à cheval entre Sénégal ak États-Unis di toppatoo sa doom di toppatoo sa sëy euh, di toppatoo sa ay musiciens yombul pour nga nekk jigéen ba pare doon ku mel ni Viviane. <laughs> dëgg la euh, Pape man li may wax rek mooy jigéen dañu war a le 8 mars benn fan rek doyul pour muy feetu jigéen ñi. Mhm. ndax jigéen mooy àddina. Mhm. jigéen lu fi baax rek moo ko moo ko indi. Mhm. Euh, macha allah moo tax jigéen dafa yàgg sonn euh, lu toll ni nag 8 mars dëgg la euh, dañu war a fête nag man dama ne ne le 8 mars la benn fan la mais nañ ko def mois bi yëpp. Mhm. moo tax nag ma jël le le 4 avril bi le 14. Mhm. bëgg a dem tëgg rek ñu boole ko ci mois bi. Mhm. Rufisque mu doon benn fet voilà mu doon fête mais man dama commencé naa ko man. bu yàgg. le premier ba tey laa commencé. ndax jigéen ñi moom. bis bu ne dañ leen war a féeteel. Mhm. voilà benn fan doyul ah d' accord dañ leen war a sargal tout le temps. dañ leen war a di sargal bis bu ne Pape c' important. Mhm. voilà mais le 8 mars bis bu am solo la ci jigéen ma bëgg jigéen ñépp rek gën a jug taxaw ah gën a yokk fulla geeg fayda gi mi ngi fi mais ñu gën ko yokk taxaw bu leen wàccee seen loxo. Mhm. ndax ñun ñoo ko yor. jigéen ñee ko yor. yàgg ngaa jiin di sargal góor ñi. jigéen itam war na góor góor lu moom itam ba kenn du ko indil ay jafe-jafe parce que gis nañu ni euh, problème yi bëri na bëri na ay jigéen yu ñuy toroxal euh, moom la tubaab bi tuddee je pense violence faite aux femmes euh, féminicide tout le monde en parle porteur de voix yi un peu partout à travers le monde ñu ngi ciy waxtaan tey jigéen loo koy xelal pour mu éviter di am ay violence bon xam nga nag malheureusement ñun sunu dëkk Euh, dañoo am aada boo xamante ni dañ koy topp. Mm-hmm. moom mooy tey ku ñu mën a sonal rek moom mooy ñu ngeen baal ma suñu borom kër yi. Mm-hmm. parce que tey dañuy gis jigéen mu nekk xale ñu takk ko mm-hmm. euh, dugal ko ci kër mu rafet lool waaye dina dem ba nga xam ne dina euh, perdre confiance boo xamante ni xëy na li muy dund ci këram. moom mooy tax dootul amati confiance ci boppam. Euh, li may ñaaxaat jigéen ñi rek moom mooy euh, ku ci nekk na nga gën a yokk fulla gi fayda gi te xam ne euh, lépp baax na. Mm-hmm. liggéey buñ ko xeeb. Mm-hmm. lu mu mën ci doon nañu jóg. Mm-hmm. jàppale aussi sunu borom kër yi. ah te bañ a toog rek ne ñoom ñooy def. ñun ñoo jigéen. xewi na loolu xewi na. dëgg la lu ñu mën ci am ci liggéey mën nañoo liggéey mais ñëw toppatoo sunu ay borom kër et puis. voilà toppatoo njaboot gi gën a fonkaat. ba pare nekk jàmbaar quoi parce que affaire bi nekkatul soit belle et tais-toi léegi soo belle et fais. lu leer laa la wax. waaw <laughs> liggéey leen góor ñi nañ yërëm jigéen ñi ah jigéen ñi am leen fulla ak fayda jóg liggéey. Mhm. te ne déedéet lépp dañ koy bàyyi suñu borom kër non loo am baax na tey góor fi mu lay gën a respecté moom mooy muy indi ngay indi. Mhm. voilà mais mu jaar yoon mu nekk ci fulla ak fayda. voilà voilà ngeen di defandoo donc ñu ngi euh, ndokkeel jigéen ñi ci euh, weer bi ñu nekk nga xamante ni tombé na ak 8 mars wax naa ko léegi euh, mënuñu woon bañ a ibbi parenthèse parce que Viviane daanaka entreprise nga yor orchestre bi yow yaa ko jiite nekk jigéen mais di dóor sa waar di dóor waar di góor góor lu bopp ba tey dafa yàgg lan mooy secret wu Viviane depuis des années nga nekk toujours ren bu musique sénégalaise secret bi liggéey la rek ak gëm sa bopp. Mhm. voilà mhm. liggéey gëm sa bopp xam yow yaay kan xam fi nga bëgg a egg xam li nga doon. Mhm. loolu c'est important. voilà bañ a bàyyi rek. parce que des fois mën nga jànkoonteeg ay ay ay jafe-jafe yoo xamante ni. da ngay naan sax man damay bàyyi. dëgg la de. voilà parce que àddina moo mel noonu mais. Mm-hmm. lu ñëw rek dangay ngay. delluwaat est-ce la daal nga toog boobu nga ni bon man damay bàyyi parce que damaa sonn en tant que jigéen euh, wax ji coow li rumeur yi tu as beau essayer de faire plaisir aux gens euh, mais ñu ngi indi ay yenn ci ay jafe-jafe parce que siiw ak coow a ànd mais dalu la nga bëgg nga dem ba mu yàgg bëgg a bàyyi. Euh, musuma xalaat bàyyi musique. ah d'accord mais Pape sama référence mooy Youssou Ndour. Mm-hmm. parce que lu ne dégg na ko. Mm-hmm. man dama màggaaleeg moom. Mhm. dama musuma gis nit macha allah bu mel nii parce que loo ko mës a loo mës a wax rek patt la ci booleel. Mhm. liggéey lu bëri wax tuuti wax tuuti voilà. mais gis ngeen résultat bi mais loolu dafa yombul. résultat bi mu ngi nii. Mhm. c'est-à-dire man métier bi ma choisir. dafa ànd ak wax. ak coow dafa ànd ak coow. te loolu yaakaar naa ne euh, mënu ma ko bañ mënu ko daw. ndax liggéeyu coow la liggéeyu mm-hmm. wax la mm-hmm. mais ak lu mu mënti demee rek lu mënti ñëw mm-hmm. yow xam nga yow yaay kan xam nga looy jar xam nga fi nga toll loolu c'est important moo tax ay wax man di vraiment yëngalu ma ak bu ak bu mu ci mënti doon non wax bu mu mënti doon na benn wax macha allah loolu dama koy sante yàlla sante ko nag Sénégal sant waat ko sama jolof band bi nga xamante ni demuñu fenn mm-hmm. ah euh, lu ñu dégg rek ñoom dañoo dem ba mel ni man mm-hmm. voilà donc euh, important liggéey bi ñu voilà liggéey bi ñu choisir dafa ak coow ba parce que ñoom itam xam nañ la bu baax voilà mais coow bu mënti ñëw mm-hmm. xamal boo ci deful waxoo ca soo tëddee da ngay nelaw sa ginnaaw bandang li ngay def mooy concentré wu ci liggéey bi gën a avancé nit ci wax yow ngay dem yow ngay loolu force de caractère la ak expérience parcours bi nga xamante ni am nga ko je rappelle encore que parcours du ko gën a riche teel a tàmbali diggante Mbour ak Dakar Michael Souma Mbacke Dioum Youssou Ndour histoire bi tàmbali ci période boobu wax nga ko sànq loolu moo indi nit ñi naan mais Viviane yow doo màgget jamais et pourtant dañuy fàtte ni da ngaa nekk xale en fait bi ngay tàmbali donc limite danga nga màggandoo ak ak ak ak sénégalais yi le fait que nga am expérience bu riche. Euh, ci wàllu musique itam ça a beaucoup joué ci force de caractère bi nga xamante ni am nga ko. mais boo xoolee bi may woy seven seconds ba ma takkee sër bi noonu. dëgg la de def meechu lakk yi <laughs> loolu yàgg na. boobu defe naa ne est-ce que am naa ay quinze ans yooyu donc boo xoolee dama ci teel a dugg macha allah. Mhm. mais euh, li may wax rek la yëfi daal fulaak fayda la laaj. Mhm. et puis euh, xam. fi nga jëm. mais est-ce que bi nga ciy dugg ci période yooyu noonu xalaatoon nga ni jamono dina dox ba nga toll fii nga toll euh, ki nga xamante ni moom nga jàppee pap jàppee ko parrain jàppee ko mag muy Youssou Ndour moom mu nekk roi du mbalax euh, yow nga dem ba dégg ren euh, bu musique sénégalaise est-ce que xalaatoon nga ni li nga toll fii. waaw pap ndax man sunu famille kenn muus cee way. Mhm. man rek maa ci way. donc liñ naan est-ce que jàng way wala jàngoo way man maa ngi rappelé wu bi ma nekkee xale. sam pap daf nee nañ dem mën a teg ci table bi may woy donc xam naa dama ko judduwaale rek. donc voilà euh, bi ma demee nag bay def variété. Mm-hmm. Euh, doon sàcc nag di dem ci koñ yi xam nga benn groupe nekkoon ci koñ bi may dem di def variété. Mhm. Ah, di ñëw di làqatu mais jour bi ma defee sàcc way ba police ak mbaboor gi yëpp indi ma <laughs> sam papa nekk ci buntu kër gi. waaw lu xewoon ba police mais parce que succès ba ma fa am. te damaa ah. sàccoon way ñu encadré la. gars yi mbaboor gi yëpp ànd ak man. nga teel a xew biir mbuur. waa ma teel a xew nag sam papa ma naan nu may ñibbee parce que sam papa ngi si buntu kër gi a xaritam yi. <laughs> ànd ak sama sœur. Uh-huh. mais bi ñu egsee ba gis coow léegi yooyu sama papa ne lu xew lu xew ñu ne ko sa doom moo toj fii da doon woy bon boobu nag la ma bàyyi ma woy parce que c'est sûr ay reetaan a jàpp ay la ko def mais bi mu yeewoo gis temps soleil ñu bind Viviane teg ma à la une. mais yeewul yeewul yaa ngi gis. waa léegi loo bëgg a def ma ne ko variété feeñal sama bopp nag. <laughs> résultat baa ngi nii euh, loolu moo tax ñu ñu am tey euh, ku mel comme yow su ma la toppee wax naa ko sànq waxtaan bi du arrêté parce que c'est toujours un plaisir euh, recevoir la di waxtaan ak yow c'est-à-dire ki lay invité day apprécier day enjoy waaye ñiy seetaan itam dañuy enjoy loolu yàlla baaxee na la ko boo delluwaatee ci seen bi comme sànq danga ma jox yëfu bandi. léegi dañuy génn ci cadre yi fu bandi. ma jox la rëcc naa. jox ma rëcc naa kon. rëccu ma la de maa ngi fi. léegi rëcc naa ak ban nga may jox. ban lañ koy jox rëcc naa ak gars yi wax leen. wax leen teree dund. ak teree dundu voilà bu ñu kenn teree dund rëcc naa ngeen tàccu Viviane mu retourné sur scène comme ça proposé ñu rëcc naa ak teree dundu bu leen kenn teree dund ndax ku lay teree dund ku ne mu ngi dundu la ko neex donc un message trop fort euh, ci album bile Viviane di ñu présenter tey puisque moom mooy invité d'honneur bu télévision Futur Média tey ci soirée bi daf ñuy yóbbu ci beneen level en live moom ak Jolof Band xeeboon nga ko dem tey mu romb la ku la waxoon ki dina yoon est-ce que dinga ko gëm xeeboon nga ko dem tey mu romb la ku la waxoon ki dina yoon est-ce que dinga ko gëm laaj fi ki xëbul war sa ku jàmbi beneen titre balaa dellu siwaat ñuy duggaat nag ci yeneen point yu am solo yoo xamante ni yéen di ngeen ci mën a bég tey ci guddi gi ci télévision Futur Média ayca la coono te lu ci noof laay soo ko nangoo ba mu sonal la yaa ko teg sa bopp waay ma defe ko nii ndax bakkan jàmm la bëgg dund sa dund bu leen faale yenn yi soxor la may wax ci de saf ma tóor te yëgu ma ndax sama yaram a blende joxoo ma lekk joxoo ma naan moomu loo

te loo ma def ba naa la li ma la jëm ci ba xëy bi dem ci xanaa Tidiane foofu garaaw na de jëmini mi ni mini mi ni ni mini mi ni mi ni mi namu na maa mi ni mi ni me me loolu dafa garaaw de ngay tuga ka génn di ko lu jëm si dégg leen foofu déggal foofu may ma foofu may ma foofu ma xool may ma foofu ma xool man ma jot si lu ma def di ko lu jëm ci bi xëy bi dën si xanaa de yow mi la sonn loo dundal kenn moom mooy àdduna noonu la ku ne ko tudd jàng dimbali jël ci ba xëy bi dën ci xanaa yow mi nga suuf man doo ma seelee dundu merci. voilà <laughs> merci. Aliou Viviane ñëwal comme ça nga rejoindre ma encore tàccuwaatal leen ma ko bu baax moom kenn du ko teree dund. dañ lay teree dund ba pare ne ci noflaay kenn nangootu ko ndax Viviane mi nga xamante ni moo ñu yóbbu tey ci beneen level notre invité d'honneur de ce soir ci télévision Futur Média si vous nous rejoignez euh, tey exceptionnellement Viviane euh, la ñu dalal mu nekk invité d'honneur bu télévision Futur Média ñuy waxtaan ci album bi nga xamante ni moom la tuddee beneen level sànq ba tey ñoo ngi koy waxtaanee li nga ñu wooyee léegi nii ñun fecc nañ ko mais xam naa ni yéen tamit ci kër yi euh, yéen a ngi koy fecc bu leen fàttee hashtag bi ci réseaux sociaux yi beneen level donc toute vos questions vos vidéos même bu fekkee yéen a ngi reprendre n'importe quel titre euh, bu nekk ci album beneen level envoyé leen ñu ko euh, ci compte yi nga xamante ne am nañu ko ci réseaux sociaux yi bu la neexee sax ngeen dem euh, ci page Facebook bu Viviane nga xam ni page bu active la parce que Viviane am na présence bu mag ci réseaux sociaux yi doomu teree dund way la boo xamante ni ku ko déglu daf ciy gis boppam tere terement dund ne ci noflaay dooma teree dund c'est-à-dire Euh, arme warul mënul weesu lii nga defal nit ñi. ku nekk daf ci gis boppam en fait. waaw Pape xam nga albam bi mën naa ne mënula uh-huh. dafa mel ni nga dugg restaurant rek xool li nga bëgg a lekk nga jël ko. Mm-hmm. parce que euh, thèmes yi am na solo musique bi am na neex na. Mm-hmm. Euh, donc mën nga toog dugg sa oto déglu ko mën nga déglu taxi mu jëriñ la mën nga mën nga enjoy daal sa xol di neex. Mm-hmm. man li ma ci gis mooy pa mag xale ñoom ñëpp mën nañ ci gis seen bopp. voilà te liggéey bi am na solo. Uh-huh. bu baax ndax euh, équipe bi ñi nga xam ne ñoom laa ko bokkandool encore une fois. Uh-huh. liggéey ko euh, comme dab ba pare lu musique bi moderne moderne da ngay jékki-jékki dégg ci tama ju saf ci biir. man musuma wax man mus xeetu album bi daal musuma ko gis. <laughs> lu ne génn na fi mais lii gis gisaguma ko ba léegi. waaw moo tax nag bi ñu dégloo album bi. Uh-huh. ñun ñëpp toog ba xaaw bu ñun ñëpp. ah euh, jijaak ñun ñëpp ñu toog. Mm. ñu ne vraiment album bi nañ ko tuddee beneen level. ah parce que beneen level la. beneen level mais ni ngay kebetoo ni ngay kebetoo noonu ci dooma teree dund adama parce que bokk naa ci ñi nga xamante ni loo miin miin miin parole yi mais ni nga koy riimee dafa dafa dafa dugg xool ko waaw parce que lu bees la moom mooy li may wax rek xam nga comme rappeur mooy bind morceau bi. voilà dafa te morceau bi nag moom dafa nekkoon morceau boo xam ne sax dañ ne woon dañ koy bàyyi. Ah. parce que tellement que dafa compliqué woon bind. ba pare compliqué way. soo ko bàyyee caaf xam nag moo ne non non lu ñu wax mu ne papa <laughs> naan ba xaw papa s'il te plaît il faut essayer. j'ai pardon mais essaye il faut essayer non bu ñu duggee ci studio bi. <laughs> akate bi ko am di ko lijjanti ñu naan la yow mi de jàng nga <laughs> buñ xam nga loolu rap en même temps mais gaaw na du loo xamante ni Samba Mbayaane li ñu xam ñun d'habitude c'est vrai dafa rythmique quoi voilà mais bi beneen level la parce que leneen la beneen style way la uh-huh. te loolu c'est très important nit ci xam ko léegi ndax génération bii di ñëw mm-hmm. man li gis mm-hmm. muy ñëw. ci Gambie la ñuy dem li naan li may seen muy direeku. <laughs> Viviane la. <laughs> non non waxuma sax man li may dégg muy ñëw. <laughs> ci xeet bi la. xale yi di ñëw. Mm-hmm. dinañ way mbalax de peut-être mais mbalax bu compliqué boo xam ne lañ leen nar a indil booy boo ñu pare ndax. donc ci yeneen la ñu jëm. ce qui veut dire que boo nekkee màggatu waykat boo amul fond doo ci mën a bokk. doo ci mën a bokk de booy boo ñu teel a bokk parce que li li yombul de kër bi di c'est grave c'est-à-dire ay Michael Jackson laay gis ñuy dem ci xeetu gam Gambie euh, ay Beyoncé laay gis ñuy demee fii techniquement. dafa compliqué woon dafa compliqué woon morceau bi dem nañu ba tuddee ko benn tur boo xam ne sax dafa doy waar. <laughs> sañoo koo wax ci kaw sañu ma ko wax. <laughs> waa léegi doo ma ci mayaat tuuti rek ndax man du ma ci doyal noo ko waxee cafa ne anam ah, j'adore ça oh génn di ko di jëm ci ñu naan la yow de caaga nga buñ la teeree dund. Oh là aduna yàlla nga jaam boo deful di nga gaañ dundu leen li ngeen di dundu ñu yéenante jaam aduna yàlla nga jaam boo ko deful di nga gaañ dundu leen li ngeen di dundu ñu yéenante jaam oh ndax yenn saa ni teg la coono te lu nekk ci noflaay soo ko nangoo ba mu sonal la yaa ko teg sa bopp waay ma ne defe ko nii ndax bakkan jàmm la bëgg dunda sa dund bu leen faale yenn yi soxor la may nural wax ci de sa fu ma dóor yi de yëgu ma ndax sama yaram a blende joxoo ma lekk joxoo <laughs> merci. qui n'aime pas Viviane tàccuwaatal leen ma Viviane bu baax man normalement tous les mois war naa recevoir invité d'honneur bu télévision Futur Média mais bu fi amoon sax neex c'est-à-dire bu doon benn émission rek laa def sax jeex na. waaye ah, moom jeexal na émission yëpp voilà <laughs> ñu ngi jëm ci ay dates yu am solo le 14 yaa ngi jëm stade Ngalandou Diouf le 4 avril yaa ngi jëm Grand Théâtre mais balaa may ñëw ci dat yooyu yëpp Viviane dañu ànd bitim réew yaa a deux ou trois ans ci ginnaaw spectacle bu doy waar boo def ci dëkk bu ñu naan France ma jékki-jékki xalaat ni euh, bi may préparer émission bi man ak euh, production bi et tout ça mais. ce serait bien tey ma proposer la nga tëgg fu mel ni Bercy wala li ma wax dafa ëpp ëppul kon tàccu leen ma xam ma ma doo ko xam ni li ma wax ëppul tey salle bu mel ni Bercy ñun ñëpp gis nañ la ci est-ce que ça te dirait un jour nga tëgg fu mel ni Bercy Viviane waaw papa euh, euh, waxuma la sax Bercy man Bercy dafa tuuti sama kanam <laughs> te pourtant bi ma koy xalaat bëgg la ko wax maa ngi xaw a tiit. non yàlla fii ak mu ñuy may <coughs> gudd fan ak wér. Mhm. incha allah man yow tam fi ma jógee la. Mhm. dafa dafa am doole de. Mhm. te def naa ay bersi yu bari ak sama waa ji sama frair boobu sama xarit yu suma jigéen tàccuwaat leen ko. su ma demee ba def zénith moo ma may doole. moom am may fit googu. Mhm. donc tey def Zénith def Bercy ak yeneen ak yeneen yeneen salle yu mag ak yeneen ak yeneen nañ ñaan yàlla mu bàyyi ñu fi rek ndax projet yaa ngi fi mhm. morceau yu neex yaa ngi fi musique yaa ngi fi ah équipe baa ngi fi vraiment taxaw nañu pour liggéey xarañ xarañ nañu mhm. donc defe naa ne yàlla nañu ci yàlla yàlla nañu fi yàlla bàyyi rek ba yóbbu ñu ci ak donc ambition yi sañ naa wax ni man lii ma proposé tey ci télévision Futur Média war naa mën a nekk Viviane biir Bercy. yow jàppal la yow tey maa la ko confirmer man validé naa ko. bravo kon su boobaa sax xam naa damay soppaliku doon promoteur organ bokk ci organisateur yi wala organiser ko parce que ñun bëgg nañu Viviane quand même euh, tëggal ñu salle bu toll noonu euh, euh, di Accor Hotel Arena bërki démb rek Fally Ipupa ma nga fa woon te defe naa utewu leen. Euh, envergure ak fi ngeen tollu góor rek góor la ngay jigéen euh, ay artistes yu mel ni Youssou Ndour tëgg nañ fa tëggati fa keneen ak keneen donc tey boo ñu confirmer lee loolu mun mënuñu lu du rafetlu ko ce qui veut dire que ragaloo fi nga jëm Viviane. non non man boo ma xoolee sax xam ne du ma nit ku ragal boo ma xoolee man ak fi ma jaar yëpp. man dama lay xool di gën a bëgg xaw ma lu tax. <laughs> jegewu ma sax ragal Pape sunu borom bi laa ragal. sunu borom ki ma sàkk. yàlla rek waaw mais doomu aadama nii nii. Mhm. déedéet yàlla daf ñu may xel ak xalaat ak jom ak fulla ak fayda. Mhm. yoonu baax a ngi nii yoonu bon a ngi nii. Mhm. ñun dañu jël yoonu baax liggéey la ñu bëgg te dañu bëgg egg fi ñëpp egg ci nit yu baax yi. parce que ku ne war na caa mën a àgg le soleil brille pour tout le monde. loolu moo tax nag incha allah nañ yokk ñaani rek dina baax. yàlla na ko yàlla moo tali Viviane merci. loolu defe naa lu ñëpp di xaar la dinañ wax ci ambition yi bu ca kanamee mais dama bëgg a dellu si tuuti ci euh, loo xam ne dama ko xawoon tëb bi ñuy wax ci bis bi ñu jagleel jigéen ñi tey sa ay doom màgg di góor góor lu bu baax ci wàllu njàng mi parce que man maa ngi enquête euh, gis nañu ngay leen di taxawoo naka ngay boole liggéey bi ak di leen encadrer sachant que léegi dañoo màgg waaw euh, sant yàlla rek encore bu baax parce que boo demee ba am ay doom yoo xamante ni euh, doom bu jigéen boo xam ne day sol sa yére sol sa dàll <laughs> macha allah di voilà xëccoog yow li nga li nga gën a bëgg. mu gën bëgg mbaa du jël ci sa perruque yi. deseetuma perruque <laughs> donc sant yàlla rek parce que ay xale yu yaru lañu macha allah. Mhm. bëgg nañu jàng. te mhm. loolu moo am solo. Mhm. am nañu yar euh, maa ngi nag def sama kéemtalaay kàttan parce que même bu fekkee ne. demuma fa mais saa yu ma amee jot rek damay daw. Mhm. jamono yii rek ñu ngi may taxaw maman kañ ngay ñëw kañ ngay ñëw. Mhm. may leen may leen ma def promo album bi ba ci kanam tuuti. Mhm. alhamdulilah Zeyna le onze bi lay pare jàng. macha allah macha allah waaw moom avocat la léegi. voilà c'est bien ça mais naka naka ngay dundee fierté boobu nga xamante ni am nga am nga ko ci sa ay doom naka nga koy dundee. waaw euh, mbégte rek parce que bu ñoom bu ñu amee fulaak fayda. jàng bay pare mhm. yaakaar naa ne ci seen yaay ak seen papa lañ ko gisee ndax mhm. ndaxte yar bi rek moo am solo tey bu ñu gisoon ñu yeewu di lekk di naan di naan attaaya defuñu dara ñoom tam loolu la ñuy jël mhm. moo tax xale ni nga koy yaree rek moom moo am solo ni nga mel rek vraiment defal defal nu ko raw sa doom mel noonu man nag man sama àddina yëpp sama ay doom lañu lépp lu ma am ñoom la ñoo ma gënal sama bopp parce que tey su may liggéey lépp lu ma mën ci def ci àddina ba pour réussir ñoom la. Mhm. parce que mënoon naa toog su ma leen amul woon musique ah, mu neex jolof band bu ñu paree ñu mbaxal <laughs> daxin mu neex ah. def ceebu jën bu baax mais sama ay doom dama fonk seen éducation dama fonk seen jàng dama. Mhm. dama respecté sama ay doom parce que mhm. doom nawle la donc euh, defe naa yaakaar naa ne jolof band yépp ñoom it noonu la ñu mel ci seen ay famille seen ay doom. Mhm. ndax lool laa loolu loolu rek laay gis ci ñoom. màggu màggu jigéen dafa gaaw tey boo gisee sa doom bu jigéen ak màggaayam moom la Sénégal yëpp waxtaane nag de wax la ko. Ah. réew mi yëpp. gis naa loolu. Hmm. gis naa loolu dañ may laaj sax numéro am léegi. man de bu bu ma nee kii laa bëgg ma may ko. <laughs> mais des fois doo gisee jëkkër rek nga sëy parce que xale yi dañ lay magal en fait des fois doo tiit ci ni mu màggee noonu. non des dañuy ànd nag ma ne ko wuy ma fii nag buñ ci duggee moom. amul maman neel tata ba pare dafa ma naa ok ma wa nañ dem am problème te day bëgg ànd ak man de day bàyyi ba ñu dugg ba may tàggatoo si euh, oui ma petite sœur mais su ma génnee day bàyyi ba ma leen gunge c'est ma maman ah parce que parce que ay moroom ngeen donc fierté la nga am euh, ay doom yoo xamante ni toll toll toll nañu fi et euh, euh, ñu nekk xale ba ni ñu màggee nga boole ñaar yëpp musique bi famille bi musique bi famille bi musique bi famille bi finalement Viviane kañ ngay noppalu. Ah, yàlla yéex. amiin. yàlla yéex rek waaye noppalu moom àddina moom defe naa ne ku fi nekk rek àddina fitna la liggéey la. saa yoo yeewoo yaa ngi gën a bëgg lu baax. Mm-hmm. yaa ngi gën a bëgg avancé mm-hmm. même bu dee dem nga ba bëggatoo sax li ngay def yaa ngi koy bëggal ñi la jege. Mm-hmm. yaa ngi koy bëggal say say njaboot. say am di jàmm. donc yaakaar naa ne àddina tout le temps rek il faut di di liggéey di voilà nii rek la. voilà <laughs> léegi nag on va découvrir quelques questions yoo xamante ni mu ngi jógee ci internautes yi parce que bi ñu tàmbalee ba tey invité d'honneur bi dañu wax ni hashtag bi mooy beneen level benn question rek lañ ciy tànn mu jóge ci benn internaute moom. xam naa li ma laajte sànq ci départ bi lu tax saa yu ma la gisee nga mel nii ku bees tàq euh, ni ma la gisee tey bokkul ak ni ma la gisee démb saa yoo ñëwee rek mu neex te dafay am style boo xamante ni boobu ba tey moom lañ la xàmmee alors am na internet bu ne est-ce que Viviane dafa def chirurgie esthétique. <laughs> loolu nag. defe naa ne parce que nee nañu kanam gaa ngi baax ba tey. waaw mais man aw ma cinquante ans aw ma ba tey. <laughs> donc question internet la mooy li ma la laaj sànq rek secret bi la gars yi bëgg xam ci nee na ndax da ngaa def chirurgie esthétique non non musuma ko def musuloo ko def d'accord xaw ma sax xaw ma sax nu ñu koy defee nañ ma may boog ma am cinquante ans quand wala ay soixante sax xaw a commencé kii mais voilà ça va macha allah ah, maa ngi sant yàlla <laughs> boobu moom musuma ko def xam naa nag maquillage bee baax rek maa ngi profité ci occasion bi mhm. di nuyu sama maquilleuse Amélia mhm. wat leen ko bu baax <laughs> am na beneen question bu ñu jëlee ci internautes yi ak hashtag bii di beneen level ak euh, Viviane euh, kii dafa ne euh, sa yére yi ngay sol ak dàll yi ngay sol est-ce que xaj na ci armoire. waaw moo loolu nag moom moo waral man décembre bu nekk damay génne yére yi dàll yi bokk ko ak samay fans. Mm-hmm. parce Euh, loolu lu yàgg la. Mhm. xam nga fii dëgg la jamono léegi dafa tas. Mhm. ba nga xam ne dañoo eh bul maye yëre de bul maye daal wóoru dañ la liggéey mais mhm. man. samay fans li ma sol des fois damay jouer ci scène euh, Casamance bi ñu fa demee bi passé wuyu ma concours wuyu ma ku dàq way wuyu ma maa ngi sol rob bu rafet. nga yëkkati robe bi mais heureusement indaale naa beneen robe pour maye ko mais robe bi ma sol. moom laa summi sol beneen jox ko. ki nga xam ne moo gagné. donc plaisir la parce que nit ci bu ñu déplacé woo ñi nga xam ne dañ lay bëgg danga leen di jaral lu ne ci àddina. Mhm. ñooñu mënoo leen fay. Mhm. donc tey jox leen sa yére jox leen sa dàll ñu koy sol même bu ñu ko solu ñu teg ko nii sax plaisir la. Mhm. yaakaar naa ne voilà dëgg la bëri na ndax euh, euh, concert yee bëri. Ah, show yi. donc fu ñu génn dañuy war di defaru looloo tax yére yeeg dàll yi bëri mais xaju fa nag. voilà beneen question je que moom la ñuy jeexalee ak beneen internaute muy laajte euh, euh, félicitation pour invité donneur bi Viviane tey ci télévision Futur Média Viviane da ngay faire plaisir ay nit yow lan moo lay faire plaisir yow. man euh, naa déglu musique bu neex. nekk ak sama ñi ma bëgg. Mhm. samay entourage. dem resto voilà dem mhm. dimanche des fois ma dem plage nag. Mhm. voilà mhm. euh, ànd ak samay samay am di jàmm mhm. ah, euh, waaw nekk ci booru géej gi di fëlaale am na nag benn bis ma dem plage mhm. <laughs> mais Pape Cheikh fekk ma am perruque bu rafet boo xam ne bu bees <laughs> mais Pape ni ma ko tegee noonu ci wetu xeer yu ngand yooyu rek xam nga ne damay sangu di style dugg ci géej gi mais vague bi ñëw jël <laughs> yóbbu na ana perruque bi ñu génn war a xool perruque bi parce que dama war a rombaat nit ji pour mais gisuñu perruque ba perruque ba ne fes. géej gi lekk ko géej yóbbu na ko. waaw donc sarax la waa géej gi dafa géej dafa neex. xam nga day dindi stress voilà. man daal na ñëpp am jàmm loolu moom mooy may jàmm. moo lay béggal voilà on va maintenant de sa ay date le 14 mars yaa ngi jëm stade stade Ngalandou Diouf Tëngéej da fa géej ëpp na fukki at ànd nga fa yuusu dem nga fa ak Jolof Band. seeti nga fa sa ay mbokk dem nga seeti fa sa ay fans mais pourquoi album beneen level génn nga ni sa concert bu mag booy defee euh, bu njëkk ci stade Ngalandou Diouf nga koy defee lu tax Tëngéej. waaw xam nga nag Tëngéej euh, sama turandoo foofu la dëkk dama fanaan dem vacances. Mm-hmm. année bu nekk nag saa yu école tëjee rek. Mm-hmm. ñu defal ma walis yi. acca sa turandoo moom Tëngéej la dëkk. Tëngéej la dëkk <laughs> waaw mais. maa ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla yërëm ci xaari ko àjjana waa di nuyu nag euh, famille euh, sama turandoo yëpp mm-hmm. ak koñ ba fa ma daan fooy mm-hmm. mais dafa nekk loo xam ne Tëngéej sama dëkk la mm-hmm. et puis euh, yàgg naa fa dem di leen bégal ñu bëgg li may def aussi ma gëj fa nag depuis xeex sibiru ah, ah ci lañ fa gëj ma ne nag ñu bi ñu waxtaanee ak ñoom Ibou ñu ne yaakaar naa ne tournée bi daal nañ koo tàmbalee Tëngéej voilà mu nekk plaisir ci man. Mhm. Mhm. Tëngéej tey bokk na ci dëkk yi gën a mag fii ci Sénégal Dakar la Saint-Louis Tëngéej donc Rufisque. Mhm. Euh, ku ne Rufisque ne euh, daanaka dëkk bu mag tey fan nga toll parce que bërki démb gis nañu euh, sa taxawaay ak fan si foofu nañ lay accueillir c'est-à-dire ñoom ñoo njëkk yàkkamti sax yeneen dëkk yi nekk dakaar concert le 14 bi. waaw engouement bi. waaw mais beneen level rek la ñu wax xam nga beneen level dafa génn mhm. euh, gars yi sax ñoo ma ñoo ma ko gën a mën macha allah mhm. mhm. donc euh, liggéey rek moo am solo euh, génnee lu neex nit yi apprécier donc dañuy yàkkamti nga ñëw pour tëggal leen ko et puis yàkkamti aussi gis nag seen artist gis ki nga xamante ni moom la ñu bëgg mu bëggal leen dafa naa ne loolu plaisir la pour ñëpp donc le 14 Viviane mu ngi jëm stade Ngalandou Diouf. lébu yi nañ ah, actuellement. lébu yi pare leen waxuma lébu yi rek waaye daanaka ñi dëkk ci yeneen dëkk yi sax ñu ngi koy pare. ñu ngi koy pare parce que gars yi dañuy jógee Dakar pour dem fekkee mu ngoog mu mm. daa xam naa ne moom tëngee ku ci mel ni Moundiaye Cissé sama frère boobu. waaw mm-hmm. moo ngay mobiliser ñëpp. Mm-hmm. waa Tëngéej daal moom mooy dina wàcc daal dina wàcc incha allah. bu ñu jógee euh, Tëngéej le 14 mars ñu ngi jëm 4 avril Grand Théâtre incha allah foofu nag moom sa kër la. waaw Grand Théâtre ñu ngi koy pare aussi. lu ñu fàtte mukk yi nga fa mujjee def sa dugg si at bu jot saa yoo dugg see mu neex te li ma ne sànq émission bu fi yemoon sax neex mais sa dugg si yi ngay dugg si Grand Théâtre di wàcc ci ay njoowaan noonu ngay balansoo noonu di dugg ak rob buy rafet yi c'est-à-dire spectacle yooyu rek bu fi yemoon tamit mu neex mais ren da nga ni tànnoo beneen date bu dul le 4 avril nga yóbbu waat ñu Grand Théâtre pourquoi 4 avril Viviane waaw parce que euh, bis boobu la ñu am sunu indépendance te ku ne 60 ans du dëgg. dëgg la waaw loolu moom la ñuy fêter. Mhm. ba pare nag euh, mu nekk bës boo xam ne rek bësu mbégte la. Mhm. ah euh, donc 4 avril daal moom la ñu tànn. Mhm. pour dugg biir Grand Théâtre jàkkaarloog Sénégal nag. incha allah le avril. waaw mais nag. laata boobu. Euh, dinañ jaar Louga. Fatick da ngaa bëri ay date nag ñun daal macha allah. dinañu dinañu wër daal Sénégal incha allah. parce que loolu beneen level tour la. beneen level en plus du 14 mars fi nga xamante ni moo di Ngalandou Diouf. Mm. avant le 4 avril Grand Théâtre mm. am na ay date diggante Louga Fatick ak ay bërëb yu bëri yoo xamante ni di nga fa amal beneen level tour mm. loolu itam du am noppalu diggante yow ak Jolof Band. waaw du am noppalu nag parce que boo liggéeyee boo toggee. Euh, ba mu ñor nga yekk ko. Mhm. gars yi ñam ne neex na. Mhm. il faut nga yekkal ku ci nekk. jox jox ko wàllam. ku ne jël wàllam ku nekk jël wàllam. et puis mhm. Sénégal macha allah dafa yaatu. lu ci mel ni mbuur dinañ fa dem dinañ dem fépp. Euh, bégal fans yi. mais doo fàtte satala ak bool ci buntu concert yi. non non kuy dugg raxas loxo. non duñ ko fàtte <laughs> gaa yi bu leen woor yi amul benn problème nañ ñaan yàlla rek. jarul ba pare dégg naa nag du du laal. ah dañuy kii bon. doo ci xam dara parce que ku nekk yaa ngi ciy wax yàlla baax na. <laughs> dégg naa ñun dañ ci kii de dégg naa bu ñu génnee ci naaj bi rek mu sey <laughs> nañ ñeme naaj bi rek fi mu toll nii. kese temps yi <laughs> dama lay bàyyi nga delluwaat sur scène balaa ñuy ñëw euh, ci beneen partie bu am solo euh, waxtaan parce que am naa benn surprise pour yow Euh, avant ma lay woon surprise puisque désormais à chaque fois ñu recevoir invité d'honneur euh, bu télévision Futur Média il faut moom itam euh, ñu defal ko surprise avant ñuy ñëw ci surprise u Viviane dama bëggoon nga delluwaat ci scène bi ma waat la nga tànnaat. ayca ma tànnal la wala ma bàyyi nga tànnal. maa tànnal ñaar. léegi tey ñu laa jox Sénégal. Sénégal. waa ndax Sénégal moom. yaakaar mhm. naa ne moom benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar. gaa yi ñu dem fan ah? <laughs> non ñu dem Sénégal ak fan. bon nañ dem. ayca ñu ah, dem Sénégal ñu surprise rek. waaw ñu Sénégal suñu ci yu garaaw yoo xamante ni da ngeen da nga ne fi mu nekk nii jot amul temps amul léegi da ngay toog dama am surprise pour yow mais dama mayaat ci joxoma lekk joxoma naan <laughs> j'adore ça c'est-à-dire bi dina ma loo te defe naa bëri naa ci morom yoo xamante dina leen def la jama ñañañañañañañañaña dama ci mayaat tuuti balaa surprise bi di ñëw joxoma lekk joxoma naan naan ngay dund sa dund di ko lijjanti ñu naan la yow mi de càgg nga buñ la teeree dund man amuma jot te loo ma def bal naa la dimbali jënt ba xëy bi dën xanaa de yow mi de sonn loo dundal kenn moomu la adduna noonu la nag ku nekk dund jaama tere ma dund bëgg di dund tey ma xamal la loo xamul woon. doo tere dund. doo ma tere ma tere a jot te loo ma def bal naa la dimbali jëm oh. ci ba xëy bi dën ci xanaa de yow mi de sonn la oh. dundal kenn moomu la àdduna noonu la nag ku nekk dund jàmm tere ma dund xëy di dën ci xanaa de yow mi de sonn la man loo oh, ma tere dund eh eh eh eh eh eh eh eh doo ma tere Viviane notre invité d'honneur de ce soir ngeen tàccul ma Mbaye Dieye Faye bu baax. defe naa dinaa def lu exceptionnel ma taxaw bàyyi leen yéen ñaar ngeen jàkkaarloo parce que mënul ñàkk lii mooy partie bi mujj balaa ñuy wax sa diggante ak euh, ak ak ak Mbaye Dieye Faye barki démb dañu def grand show nga nekk animateur bi. dëgg la posé Youssou Ndour ay questions. dëgg la dernière question yu ñu bëgg a posé Viviane balaa ñuy wax ci sa diggante ak moom yow laa koy bàyyeel. jàkkaarloo nga ak moom la nga laajoon sa jumeau lan ngay laaj tey Viviane pour finir invité d'honneur bi mbay Dieye tàccu leen loolu jërëjëf Baye Cheikh am naa contentement ñëw teew fii fi nga xam ni lu ne xew na fi ak ñun mhm. kër gi su ma fi duggee cassette bi dafay rewind day dellu gannaaw mhm. ndax fii mooy nag temple de la musique mhm. muy cosaan ma bëgg ngeen tàccul ma Pape Cheikh bu baax bëgg ci yow Baye Cheikh kontaan bëgg ngeen tàccul ma Jolof Baan bu baax a baax ndax feccu liir bu neexee yaay jaa téye ca mbaggee tàccuwaat leen waa Jolof Baan ak entourage u euh, Viviane bi yëpp bëgg nag ñëpp jóg taxaw balaa ma koy poser question bi tàcc ko boole kook ay yuuxu yi même même yi jërëjëf Viviane. merci beaucoup bi ma lay posé moom mooy fii nga toog tey nga taxawoon fii scène bi nekk fii ak benn ndaanaan moo defoon émission boobu yow nga ko daan bëggee keneen di ko bëggee ci métier mi ngeen di def muy Moïse Ambroise Gomis mu nekk émission bu rëy fii ci la Viviane taxaw ci ginnaaw Youssou Ndour nekk lu ndaw di aawu Youssou Ndour bés boobu fii jàppazon la woon lan nga yëgoon bi nga taxawee ci ginnaaw the king of African pop music le roi de la musique africaine ma bëgg ngeen tàcc ko bu baax muy Youssou Ndour keroog bi ngay aawu super étoile di tëgg nga nekk lu ndaw lan nga yëgoon. xanaa mbégte bu rëy rëy naan est-ce que lii dëgg la dëgg la wala du dëgg man maa taxaw nii di way en plus ñëw Dakar xam nga Mbour laa jóge woon. jóge <laughs> ñëw c'est-à-dire ñëw euh, nekk ci beneen level. Mhm. parce que mën nga musique commencé di di di mbapat ba mu yàgg lool nga door a dal ci fu mag mais mhm. macha allah. dama jóge mbuur rek dal ci ndaanaan bi macha allah ah. donc bi ma taxawee di aw dafa nekk plaisir boo xamante ni sama rêve ne naa réalisé wu na bu baax hmm. voilà kontaan rek. voilà daj ci ñi nga xamante ni ñoom bi ma nekkee xale ñoom laa toog di seetaan. Hmm. yàlla def moom moom. mu ñëw dugg daal mbay muy mbégte rek. muy mbégte bu rëy tàccu leen loolu waaye. <laughs> Baye Cheikh. Mbaye Dieye ma yemale ko fa ma yemale ko fa question bi saf na leen wala safu leen. voilà donc euh, kontaan nañu tey ci teewaay. jërëjëf yow it amoo jot. moom amul jot mais nga ñëw fekk si ko. jërëjëf mu nekk invité d'honneur bu télévision Futur Média TFM di sa télé. Mhm. tey sa diggante ak Viviane kenn dootu ko naatable. déedéet wane ngeen ko fu ne. waxtaane ko fu ne mais jëm ji nga gis tey. bu demee ba dégg reine de la musique sénégalaise. Ah lu mu lay def yow mi nga xam ne sa kanam la tàmbalee. jërëjëf li may def rëy na Pape. Mhm. kii ma jàkkaar lool nii mu fàttali nettali bés boobu njëkk boobu ma dollil ko ci ni première premier albumam muy ayoo sama nen fii lan defoon ring bi taxaw fi def fi vidéo bi. c'est que fii la woon en fait quand bu ñuy xoolaat clip bi sax on se souvient. <laughs> waaw fii de euh, saalu cosaan bi. waaw maa ngi sol benn manteau. ubbi ko defuma dara def tëmbal benn chaîne di bandi bandi bis nag waaw waay yow waay da ngay jom waay tàcc kooku laa toogal nii uh-huh. ki ma toogal nii uh-huh. muy soxna su am maana mm-hmm. nit piir bu fonkoon ay waajuram mm-hmm. fonk famille mm-hmm. magu ci waaye moo ci mag ci teraanga ndax bu yàlla ne waaw dangay naan waaw boo newul waaw tu seras trop et très fatigué Baye Cheikh ki ma jàkkaar lool nii ñu xam ko nag dafa mbappat wax na ko ci album bi ne su ngeen bëggee xam may laaj leen ko super étoile et mu mbappat ba yegsi fii tey fi mu yegsi Viviane la reine du Jolof Band et àdduna yëpp nag admiré ko sopp ko mu mën a way lool je touche di bois car macha allah. boo ko tëjee fii nekk ci biti. mu reprendre lanaan yu mag ya. ca Amérique comme ay Beyoncé ay euh, Whitney Houston ak yooyu. da nga naan ñoo ñoo làqatu fii di way. donc dafa mbappat kenn mënu ko way ci ay nax. Euh, euh, nax ci ay way mënu ko nax ci ay way. donc Viviane ma koy féliciter d'abord. fi mu commencé di mbappat ba yegg si fii te dina gën a yéeg. incha allah. wane na ko ci album beneen waaw wane parce que album bi boo ko dégloo musicalement dafa dal musique bi rafet et baxaw ma koy félicité moom i tamit ànd ceeg Ibrahima Ndour ak naanaan bi nekk ci clavier bi waaw xam nga ma bëgg ngeen tàcc ko bu baax ah félicitation euh, donc boo dégloo musique bi touche yëpp la laal mhm. mais dafa am thème way yi boo ci dégg rek day yeete ci li xew ci àdduna bi fi mu nekk nii mhm. ni nit war a demee mhm. encore une fois ma koy félicité te naan ko big up waaw ah. sa diggante ak Mbaye mooy sa diggante ak Youssou Ndour Viviane dëgg la ñoom euh, merci beaucoup encore mbay yow euh, du ma ne guléet mhm. ndax waxuma la man rek waaye yow ñëpp nga jël boot leen di jàppale ñëpp tey Mbaye lu ma xewle waxuma la sax kaay woy ak man mais événement bu ma am wala ma am lu rey dama koy woo day ñëw guddi gu nekk fekkee répétition yi joxe ci xalaatam ba ci album bu mujj bi am na ci yoo xamante ni moo ma ko jox pour ma woy ko donc yaakaar naa ne man mënuma remercier mbay mbay lu ma ko bëgg a wax rek dama koy xeeb ndax euh, sama papa la sama frère la sama xarit la xaritu ñëpp la mbay tànkam luwul kenn nit bu baax nit boo xamante ni moom waxuma sax li muy def dañ ko jëlale ndaxte yaakaar naa ne ku bëgg lu baax rek bëgg am musique bu baax wala nga bëgg déglu lu baax da ngay woo Mbaye mhm. donc merci beaucoup mbay jërëjëf euh, kontaan nañu li ñuy def rek mooy ñaanal leen amin yàlla bàyyi leen fi ba ci kanam lu yàgg yàgg yàgg ndax yéen ngeen nekk fi mhm. mooy sunu njëriñ ngeen ñuy musical mhm. ci la ñuy jàng donc yaakaar naa ne loolu lu fort la lu am solo la mbay jërëjëf encore. merci mënuma la remercier lu may wax rek xeeb ko. Mhm, jërëjëf kontaan naa merci mais ñun tamit kontaan nañu. tey nag exceptionnellement dama tànn déranger bëgg nga woyandoo ko ak Viviane. muy le morceau dérangé. ah oui ah morceau bi day. toj na dëkk bi toj lëmbale na moom sax laa bëgg ñu jeexalee <laughs> euh, invité d'honneur euh, bu euh. télévision Futur Média tey ñu amoon mbégte gàtt na mais noonu la. moom Viviane li ci des dina ko àggali stade Ngalandou Diouf le 14 mars rendez-vous baa ngoogu ñun ñëpp dinañ fa nekk parce que événement télévision Futur Média lay nekk bu ñu jógee le 14 mars ñu ngi jëm fi nga xamante ni mooy Grand Théâtre le 4 avril fa la ñuy amalee gudd gu mag goo xam ne Viviane mooy sargal africain yi du sargal sénégalais yi kese parce que am na ay avion yuy waaj yoo xamante ni dañuy jógee ay Mali ay Guinée àndandoo ak sénégalais yi def fête nationale fêtu indépendance bu Sénégal ca fi nga xamante ni mooy Grand Théâtre mais entre temps Viviane dina dem luga dina dem Fatick dina dem Thiès dina dem fi nga xamante ni mooy Mbour ay date yoo xamante ni mu ngi nar a bokk ci beneen level tour ñuy gërëm équipe yi ngay liggéeyandool moo xam Ibrahima Ndour Jolof Band Pape Assane Seck Maman Teni ñi nga xamante ni dañoo dégourdi ci. liggéey bi nga xamante ni moom la ñu wone depuis beneen level génn Sénégal bu ñu tolloon ci disque d'or leer na ma ni Viviane dina am platine et preuve bi wone na ko ci album bile eh on lui souhaite bon vent moom bon vent bon vent bon vent bon vent rek bon vent looy tàggoo merci waat encore di la remercier rek parce que déranger bi tamit mhm. buñ ko ooyee Mbaye easy da ko def mu yomb ba bëgg dee mhm. ba pare macha allah. lu mu laalul baaxul de. <laughs> waaw lu mu laal la gën lu mu laalul de. dama ne na laal de mbay. macha allah kontaan naa. jërëjëf euh, di remercier Thiané Diagne nag ci robe bi. moo jaarati Ndaw ci bopp bi. Latifa. voilà Amélia maquillage maquillage. di remercier euh, waa Kër Vivi bu baax a baax. Euh, Jolof Bond. waa kër gi. Mhm. di la remercier. merci bàyyiwuma kenn. Mhm. su ma juumee nañ ma baal di remercier Sénégal yëpp kontaan naa. Papa mbay Baye Cheikh xam nga man Viviane dama ko bëgg ba faf yaayoo man xam naa loolu waaw dama ko yaayoo <laughs> xam nga hmm. boo gisee ku mel ni moom wax fa dëgg boo ci mënul dara da nga koy yaayoo te yaay de ko maa ngi nàmp si <laughs> eh, tàccu leen Baye waay <laughs> merci kon ma bàyyi leen ngeen rejoindre dama lay dab wala dañuy démarrer ndoo te ñoo demandoo nga jàpp ma rob bi laay bañ moo gën a leen Viviane ak Mbaye Dieye ñoom ñooy tëj invité d'honneur merci à tous on va se retrouver xam naa dans quelques jours encore puisque euh, 15 euh, jours bu jot nañu recevoir invité d'honneur bu télévision Futur Média c'est vrai que su fi amoon neex mais Viviane euh, daf ñu jaral yeneen daanaan yaa ngi ci dëkk bi on les recevra un par un pour parler de leur parcours i y a d'autres émissions qui vont arriver on sera très musical très prochainement télévision Futur Média Night Show par exemple di ngeen ko am mën a gërëm équipe yi ñu àndaloon merci euh, à tonton Mag mi nga xamante ni moom moo ko réalisé toute l' équipe de production Koulim Dioum ñu ngi leen di gërëm on vous souhaite une très bonne soirée on se en live ak Viviane ak li nga xamante ni moom lay defandoo ak Mbaye Dieye Faye muy déranger ñun ñëpp on va se lever on va danser yéen tamit seen biir kër mën ngeen fecc bu ko defee ngeen mën a bégee pas de panique faites-vous plaisir on est là pour vous divertir ci télévision Futur Média Viviane Mbaye Dieye déranger pour finir merci petit frère boobu. DG tàccu leen njagandul bu baax waaye. bu baax bu baax. jóg leen. xam naa li lay sonal. ma ni wax ju bëri ci nga diis xam naa li lay sonal. da ngay mel ni moo lay déranger. Simba Simdi Maritanti